fii ak fee comme chaque mardi xam nga euh, li gars yi xewal mooy partager leen vidéo yi maintenant internet <laughs> heureusement mu ngi fii chacun est libre dans sa douche dans sa chambre euh, këram ak fu mu mënti nekk jël portable am filmer boppam wax lu ko neex maintenant comme loolu dafa tendance on s'est dit pourquoi pas euh, jox possibilité sénégalais yi bu ñu filmer seen bopp wax seen xalaat ci li fi xew ñu yónnee ñu ko amateur ou professionnel et puis ñu partagé ko ak téléspectateurs yi donc loolu moo tax Didi Damour place am am solo Euh, ci yeewu leen bi comme euh, chaque mardi alors il y a yoo xamante ni euh, dañ leen di organiser ay couronnement di leen distinguer ci yenn taxawaay yi et tout ça donc il y a des yoo xamante ni joxe nañu seen xalaat ci mbir moomu noonu di di d'amour dëgg la Pape Cheikh sénégalais yi joxe nañu seen xalaat. dëgg la kay dag maa xamal lu dul dëgg. su ma waxee rek. wala boog <laughs> donc noonu la demee kon. Euh, ñu si bëri wax nañu seen xalaat ci li nga xamante ni mooy couronnement wu entreprise yi ñu am fii Sénégal nga xamante ni chaque année di nga gis ñu jël si ñenn ñi fësal leen peut-être wane ñoom seen liggéey wane seen dynamisme ba pare reconnaître que c'est peut-être ñu ngi bokk parmi les meilleurs donc euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew defe naa ni miin nañu yooyu ay awards si ay entreprise ak yeneen i bërëb donc dañ leen di bàyyi ñu wax seen xalaat ci lii ni mu demee ak euh, naka lañ ko gisee ñu ñëwaat léegi ci plateau bi ñu ëpp. bon. i nag ñu ngi wax ci thème bu am importance thème bu intéressant parce que on parle de l'entreprise te entreprise je pense que bokk na ci faculté yi développé réew bu baax a baax a baax a baax donc xam naa ni briefing bu ndaw bi sax du ci xaj bon mais euh, dinañ ci jéem a wax tuuti daal parce que je trouve que ñu ngi leen récompensé euh, leen. Euh, primé et tout tu vois lu am solo la parce que aussi euh, lu kuy def résultat dañ ko war a sargal dañ ko war a encourager tu vois côté boobu li ma ciy wax rek mooy ñu wàññi discours bi tuuti parce que am na bu ma si jot a suivre keroog mais j'ai vu que juste euh, discours yu bëri day mel ni justification donc loolu initiative bu baax la di leen encourager. man ni ma gisee société yu mag yi nekk Sénégal. ak société yu ndaw yi nii franchement sénégal yi ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey bu baax ñi bëgg liggéey nag ñi bëgg liggéey moom franchement ñu ngi liggéey bu baax ni franchement ceux qui veulent bosser ils sont en train de bosser Sénégal franchement mais dama bëggoon am leen lu ma ci bëgg dolli vraiment ça donne envie baax na ñuy sargalante di joxante ay raaya et ci et ça c'est très beau mais dama bëggoon en fait société yu mag yi njàpp ñu gëstu tuuti société yu ndaw yi ndax mbooloo mooy doole te fii boo fi amul mbooloo doo dem franchement bu nu société yu mag yi jàppale woon yu ndaw yi emploi yi dinañ gën a bari poste yi dinañ gën a bari kon chômage bi dina wàññeeku en mais dafa am ay aspect yoo xam ne dañ ko ci war a toucher cest à côté informel bi je pense que war nañ gën a mën a wàcc ba foofu gën a dugal suñu loxo. Euh, état bi bon moom laay wax gën a dugal loxoom foofu gën leen gëstu gën leen saytu parce que am na ñu nekk en bas de l'échelle di def liggéey bu am importance di yor ay petite entreprise euh, di ci dundal ay nit ay nit yu bari di ci bénéficier wu te loolu dafa bokk ci développement réew donc war waruñu ko yemale rek euh, si je peux l'appeler haute gamme ci haute gamme bi kese je pense que war nañu gën a mën a wàcc ba ci suuf ba ci bas échelle bi pour encourager ñooñu aussi. waaw te nit yi tamit dama leen di ñaan leen na ngeen dem jàngi les jeunes au Sénégal ngeen dem jàngi parce que nit bu bëggee place bu baax bu mérité da ngay jàng y a que le travail qui paye voilà. mënoo jàng def ba sa ba sa jàng yam seen deux nga dem di dugg ci benn société boo xamante ne di xëccoo place boo xamante ne ko am master moo fa war a toog. dem leen ngeen jàngi liggéey am seen ay diplôme bu am na diplôme yoo xamante ni doo ko doo ko doo déposer sa CV ci benn société ñu gis ni am nga diplôme bi te ñooñu jëluñu la franchement li Youssou Ndour di wax naan nga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe. beneen affaire aussi mooy euh, ñuy xool aussi tamit euh, ci entreprise yi employé yi seen statut parce que je pense que entreprise bu defee résultat rek employé yi am na rôle bu bëri bu ciy joué donc je crois que war na leen gën a mën a jox seen àq ak seen yelleef cest à xool seen heure de travail yi xool façon bi ñu leen rémunéré et tout parce que aussi euh, affaire bi ñu ñu ci kaw rek quoi beneen chose aussi mooy les marché cest à marché buñ bu ñu ko ci grande entreprise yi parce que dafa war a wàcc ba ci suuf ku nekk gis ci boppam. parce que des fois nga dugg surtout Sénégal ay ruq gis fa ñu yor seen petite entreprise ñu yor imprimerie yu ndaw. mais bu ñu amul accès ci marché yu mag yi rek du ñu développé wu bay wën a mën a def ay recrutement mën a jël ay jeunes ñu ciy bénéficier wu donc kon marché yi war nañ ko gën a mën a xool ni koy tasee boole ci ñi nga xamante ni tamit ay entreprise yu ndaw. plateau yeewu leen bi moom yaa rien naa di mën ngeen seen liggéey yéen ngi liggéey bu baax a baax a baax ku xool ci yéen dina am jom Pape Cheikh li ngay wax naan euh, soxla bu teew ay neloo faju ko loolu dong moo tax ma jàpp la man sa wax boobu dama ko jàpp moo tax man soxla bu teew ay nelaw faju ko dama ko gëm maa ngi leen di nuyu waaye yeewu leen yéen ñëpp di leen sant bi leen gërëm merci beaucoup

ñu am fii Sénégal dañuy peut-être sukkandiku ci peut-être jot a xew bitim réew indi ko fii ko dalee MEDES ba ECOFI ñoom ñoo ko mujjee def euh, semaine passée je pense semaine passée samedi passé donc mu nekkoon promotion entreprise yi gën a dynamique fii ci Sénégal ba pare loolu tamit dafa nekk loo xamante ne appel la pour suñu investisseurs yi pour euh, investisseurs yi nekk bitim réew tamit ñu wan leen ni que ñun suñu suñu réew ñu ngi liggéey te bu ñu xoolee bu baax ñi fi bëgg a liggéey dëgg ñoom ñu ngi liggéey te ñi nga xamante ni mooy euh, yi xamante ne amuñu liggéey wala def nañ ay déposé nañu fu nekk amuñu peut-être tey buntu la pour ñoom it ñu ubbi seen yëfu bopp te sa yëfu bopp defe naa ne ci benn lay commencé ngay compter di compter di compter ba xëy ñu mën la tudd ci li nga xamante mooy entreprise yi gën a dynamique fii ci Sénégal donc euh, am na ñoo xam ne tamit dañuy hésité bu ñu hésité wee dinañ xool entreprise yu mag yoo xamante ne tey mën na doon influence ci ñoom ñu def peut-être pareil wala peut-être un peu def lu différent loo xamante ni mën na ba tey tax ba ñu leen di tudd ñu leen di boole ci ñi nga xamante ni ñooy les meilleurs euh, Ndour ba tamit comme àdduna defe naa ni liggéey dong moo ko mën a joxe comme euh, ndaw si ni mu ko waxee donc man li may li may peut-être euh, yokk ci affaire bi mooy pour ñu élargir euh, affaire u nomination yeeg affaire couronnement yi peut-être jóge ci entreprise yi wala boole entreprise yi ak yi nga xamante ni mooy leneen li nga xamante ni dëkk bi moom la def lu ko dalee musique agriculture defe naa musique sax ñu ngi koy def ex ci côté peut-être hip hop awards théâtre bi cinéma bi et tout def ko ay euh, loo xamante euh, joxe joxe ay raaya parce que loolu defe naa ne comme ni nga koy waxee chaque jour Pape Cheikh euh, waaw góor day yokku ngóor a mm-hmm. te waaw kay mm-hmm. donc dama fay jaaraale peut-être ñu tudd tuuti Fatou Dia parce que moom elle fait un peu quelque chose comme ça si jaar-jaaru jàmbaar parce que day wane ñi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi di liggéey te peut-être mënuñu leen a gis ñu ñu toog fii rek day dugg ci àll bi xool koo xamante ni peut-être deful comme def mais tellement spécial que duñ ñun duñ ko xalaatu def sax. mais avec les moyens du bord. voilà avec les moyens du bord day dem ba développer benn mbir moo xamante ne lu mag a mag a mag a mag lay doon donc euh, Fatou Diagne dañ koy remercier waale ci ñooñu nga xamante ne mi ngi ñu leen di wan di nuyu waale euh, Manik Diop Manik Diop Souche ak. Euh, monsieur Barry bu Ecofi. Ah, ok waaw waaw góor. jërëjëf waaw góor waay. c'est vraiment bu a entrepreneur entrepreneuriat ci àll bi nga koy gisee. parce que fii sax tu peux naître tu mën nga judd ci famille bon doo entrepreneur àll bi tu es obligé. am tu es sinon euh, doo ci génn donc foofu bu ñu wax dëgg dëgg-dëgg entrepreneuriat ci àll bi la mooy euh, femmes yi nekk ci village yi muy mhm. góor ñu ne ci village bi ils sont obligés ñu mën a def loolu di transforme li ñuy togg di créer entreprise yu ndaw wala def ay mbootaay yooyu yëpp euh, ba xëy suba tel màgg donc moo mm. tax ñu bëri ay structures yu bëri léegi di leen a développer donc c'est c'est c'est bien. te foofu amul souvent ay distinction genre comme ni ñuy xalaatee fii. góor moo war a def li jigéen moo war a def li foofu ñoom ñëpp ñooy booloo defandoo lépp. soit en famille wala neneen. Mm. mais ñoom ñooy def lépp amul góor amul jigéen ba mbir bi fu mu toll ñoom ñëpp ñu boole ko ba. tu vois comment Saint-Louis femme yi ñu wane woon ñuy defar euh, buuj bi noonu. t'as vu non <laughs> sérieux ces femmes là tu vois je pense que dañ leen war a jàppale bu baax. ak coono bi ñu si daj seen mm. nga ne famille lu ñu defar. ay coquillage mooy yooyu ñu génnee di toj na. yaa yaa yaa am na ñuy defar yoxos bi am na ñuy defar euh, on on on appelle ça quoi euh, c'est les coques. oui oui ah, les coques voilà. Ah, les hmm. euh, coques. coque mooy buuj. waaw. Ah. ah buuj coque la tudd. non am na beneen bu si gën a sew. mooy bu gën a tooy. yoxos yoxos ah yoxos. moo gën a tooy wala bi gën a tooy ngay wax wala. bi ñuy lekk bu sew bi mooy mooy mooy buuc mooy boobu mooy buuc non pas pas boobu beneen bi li ñu def citron bi nan la tudd ban la ban ngay wa paañ bi nekk si coquillage nan la tudd ñoom ñëpp ci coquillage yi nekk ah waaw non je coquillage day ndaw bi day ndaw bi ba day ngande waaw am na huit mooy mag a mag bi après am nga yoxos yoxos non du yoxos du yoxos paañ paañ mooy buuc voilà paañ wala buuc non paañ paañ ok mais jigéen ñi ñoom bi ñuy liggéey ban la buuj buuj moom mooy kokk jigéen ñi kokk la defar non la mais lan mooy kokk ay satu quand mooy euh, en fait day mel na kokki kii rek day mel na pañ mais mooy gën a rëy mais ça non euh, ci sénégalais yi waaw buuj jor jàpp satu pay fal sa loxo ca kaw ah famille coque la ñuy defar luy coque mu ne ma bucc <laughs> n'importe quoi voilà genre de la fatigue merci Didi d'amour 10 heures 12